de Je cherche mon pays, là où on apprécie les traditionnels sans dissocier ses multiples strates. Je cherche mon pays, là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre mauve non en l'incandescence et la douceur, la brûlure d'exister et la joie de vivre. E. Monsieur le responsable des associations des personnes vivant avec un handicap, Messieurs Mesdames les enseignants, Mesdames, Messieurs le personnel de l'INEFJA, Mesdames, Messieurs les invités, chers élèves, bonjour. À l'entame de mon propos et avec votre permission, je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Monsieur Yankoba Diatara, et la délégation qui l'accompagne. Monsieur le ministre, tout le personnel de l'INEFJA, sa communauté éducative et moi-même, éprouvons un grand plaisir à vous accueillir avant de vous exprimer notre profonde gratitude et nos remerciements appuyés pour le soutien et l'appui important que vous apportez à notre cher institut. En effet, personne ne doute de votre engagement et votre attention pour traduire en actes la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Conscient du rôle fondamental et incontournable du numérique dans la transmission de l'information et de la communication en général et du processus enseignement-apprentissage en particulier, soucieux de l'impérative nécessité d'inclure tous les enfants du Sénégal quelle que soit leur déficience, ce que vous êtes en train de faire, vous ne ménagez aucun effort pour le développement de, du numérique dans le secteur de l'éducation et de la formation. Mais je tiens à dire, hic et nunc, devant cet auguste auditoire, que vous n'êtes pas en terrain inconnu. Car, étant élève, vous fréquentiez déjà pour rendre visite à vos camarades et étant autorité, vous n'avez jamais cessé de soutenir l'Institut, en attestent les nombreux dons à votre actif. J'en veux pour preuve les réalisations enregistrées dans cet institut. Il y a un an, sous votre ministère, sous votre magistère, avait pris l'engagement de réfectionner et d'équiper la salle informatique. un projet devenu aujourd'hui une réalité. Oui. En procédant de la sorte, vous ne faites que corroborer les initiatives et innovations faites par votre collègue, notre ministre de tutelle, monsieur Mamoudou Tala, qui, s'inspirant de la lettre de politique sectorielle et de la première décision des 11 du Conseil présidentiel, je le cite, réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, les numérique, les technologies et l'entrepreneuriat, a eu la vision d'initier des stratégies comme l'enseignement à distance à travers le promet, la télééducation, entre autres, pour réussir et maintenir intacts les enseignements apprentissages dans un contexte de pandémie par, marqué par la covid Ce qui a fini de montrer toute la capacité de résilience du secteur de l'éducation et de la formation traduite à travers de reluisants résultats aux différents examens en 2020 et en 2021. Monsieur le ministre, en choisissant la date du 3 décembre, journée internationale du handicap, pour venir remettre à l'Institut le matériel informatique promis, vous ne faites que donner corps à une solidarité gouvernementale agissante que vous matérialisez de fort belle manière et à travers ce geste, l'Institut vous remercie infiniment. Aujourd'hui, nous allons recevoir du ministre un don composé de 10 ordinateurs de bureau, un ordinateur portable, une imprimante multifonction, une photocopieuse IR2202, une imprimante braille, on possède avec un logiciel, 20 rames de papier braille, 2 plages braille, 20 kits ardoises en braille, un logiciel de synthèse vocale, 10 kits oreillettes, 10 poinçons braille, 20 cannes plantes, un logiciel de revue d'écran agrandisseur, 10 tables d'ordinateur. Donc à travers ce geste, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur le ministre Yankoba connaît très bien cet institut. Il a fréquenté cet institut et j'ai eu écho de cela, mais tout à l'heure, il m'a aussi dit qu'il amenait même un camarade qu'il guidait chaque jour entre le lycée et l'institut. Ce geste, ce geste, il faut être un grand homme, doublé d'un humanisme sincère pour le faire. Et comme qui dirait, je pense, je parle sous le contrôle de monsieur le préfet ici présent, pour invoquer Terence homo sum et nihil humanum ame alienum putum donc c'est ce qu'a fait monsieur le ministre Yankoba Diatara nos remerciements à l'endroit de tout le personnel de l'établissement enseignants comme personnel technique qui depuis l'annonce de l'événement coordonné par le directeur des études que nous félicitons s'est levé comme un seul homme pour la réussite de cet événement Merci, monsieur le ministre. Merci Je vous remercie de votre écoute attentive. Le ministre monsieur le préfet du département de Thiès, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Nord, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le directeur de l'INEFJA, chers maires, chers enseignants, mesdames, messieurs les chefs de service, chers parents d'élèves, chers apprenants, chers invités. C'est avec un immense plaisir que nous assistons aujourd'hui à cette cérémonie de remise de matériel informatique hautement salutaire à ce prestigieux institut qui est INEFJA. Ce geste, monsieur le ministre, vient démontrer de la plus belle manière votre engagement à apporter des solutions concrètes aux préoccupations de nos populations. Monsieur le ministre, soyez en remercié et sachez que nos prières vous accompagnent pour plus de succès dans votre fonction ministérielle. À l'endroit de l'administration, du personnel enseignant, des apprenants, nous osons espérer un bon usage de ce don hautement important pour l'Institut. Je serai bref, je ne saurais terminer sans remercier très sincèrement tout le corps professoral de cet institut qui travaille à transformer ce qu'on un handicap, une malchance, en une véritable sens pour Bonjour, chers invités. Monsieur le de l'économie et des télécommunications, au et des médias, soyez les bienvenus dans cette test des jeunes avocats du Une certaine difficile de m'exprimer après à la suite de recruteur, aussi bon cadre, qui connaît si Dieu laisse comme moi. Mais, mais je tiens à témoin que votre parti bien son, bien à son nom pour la jeunesse légendaire que nous allons et nous allons en faire notre propriété. Avec la complicité de, de, de l'équipe, euh, l'équipe, euh, le, le, le, le professeur, que nous tenons à accompagner pour les

Monsieur le représentant de l'ARTP, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, titres, grades et rangs respectifs, tout protocole respecté, chers invités, chères populations de Thiès, chers citoyens, chers élèves de l'INEFJA, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous adresser mes chaleureuses salutations et mes remerciements d'avoir bien voulu faire le déplacement pour participer à cette cérémonie de remise de matériel et d'équipement à l'INEFJA en cette journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Cette cérémonie constitue un pas important dans la transformation digitale de notre économie en prenant en compte une large frange de la population, je veux nommer les personnes vivant avec un handicap. Elle participe d'une part à la mise en œuvre des directives du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, président la République, qui va instruire le gouvernement de poursuivre sans relâche les politiques d'accompagnement et d'insertion socio-économique des personnes vivant avec un handicap. D'autre part, cette cérémonie contribue à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Aussi, la stratégie Sénégal numérique 2025, arrimée au PSE, élaborée de manière consensuelle, mais un accent particulier dans l'inclusion numérique et l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap et des femmes. C'est ainsi qu'il a mis en place le projet Handicap et TIC qui nous vaut cette cérémonie d'aujourd'hui. Comme vous le savez, jamais le monde n'a connu un moment aussi important dans son évolution technologique en termes de communauté et de confort dans les usages. L'hyperconnectivité caractérise aujourd'hui notre monde de vie et nous assistons à la multiplication des objets connectés Il est ainsi primordial que les personnes vivant avec un handicap et les personnes atteintes de maladies rares puissent avoir pleinement accès et de façon autonome aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'aux possibilités offertes par celles-ci. Mesdames et Messieurs, depuis longtemps, les personnes vivant avec un handicap ont leurs besoins spécifiques, non pris en compte dans un cadre normalisé et respectueux de leur statut. Aujourd'hui, l'accessibilité au numérique devient essentielle pour garantir le respect du droit de chacun à pouvoir participer à un monde interconnecté et permettre l'inclusion numérique avec un droit ouvert à toutes les personnes, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur capacité ou de l'endroit où elles se trouvent. En outre, la dynamique déclenchée au niveau international à travers la publication de plusieurs textes juridiques, prône la prise en compte des droits des personnes vivant avec un handicap. Le secteur de l'informatique et de la communication a été particulièrement considéré pour la prise en charge de la problématique de l'insertion de ces personnes, notamment le sommet mondial sur la société de l'information. De plus, au niveau national, la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet en entend comme personnes handicapées toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'insertion avec certaines barrières peut porter atteinte à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité. Dans ce contexte, la stratégie Sénégal numérique, communément appelée SN 2025, dans son axe 1 un accès ouvert et abordable et réseau et services numériques pour tous sur l'ensemble du territoire national. En déclinant cet axe, elle prend en compte sérieusement l'accessibilité qui est une possibilité dédiée aux personnes vivant avec un handicap et leur permet de bénéficier de commodités qu'offrent les, les outils et les ressources du numérique. Aussi, diverses politiques, divers politiques et programmes et projets et initiatives au, au, en matière juridique sont initiées pour une jouissance effective des droits et devoirs des personnes vivant avec un handicap par l'État du Sénégal, les ONG, les associations et les partenaires techniques et financiers. Toutefois, il est important de souligner que l'applicabilité de ces mesures pose problème pour la plupart des cas. Par ailleurs, plusieurs contraintes à la jouissance des droits et devoirs et à l'insertion professionnelle des personnes vivant avec un handicap sont notées, à savoir la discrimination et la stigmatisation. Le faible niveau d'occupation productive du fait de leur limitation visuelle, auditive ou motrice. La proportion des entreprises à ne pas recruter des personnes souffrant de quelques limitations, etc. Les difficultés d'accès au service des TIC. Pourtant, il est établi que les TIC peuvent jouer un rôle important pour une meilleure qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. En effet, plusieurs facteurs démontrent la nécessité d'utiliser les TIC comme outil de promotion des trois des personnes vivant avec un handicap. Il s'agit du fort potentiel d'emploi qu'offrent les TIC pour les personnes vivant avec un handicap, de l'adaptabilité des métiers du TIC par rapport à la situation des personnes vivant avec un handicap qui demandent moins de mobilité et d'efforts physiques que les autres types de métiers. de l'obligation des États signataires de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap à assurer l'égalité d'accès aux télécommunications TIC, Internet compris, par les personnes vivant avec un handicap. Aussi, elle définit l'accessibilité des TIC comme partie prenante des droits en matière d'accessibilité. Toutes ces actions font que les TIC constituent un moyen parmi les plus appropriés pour une insertion rapide et durable des personnes vivant avec un handicap. C'est dans cette optique que le projet Handicap et TIC s'inscrit dans une prise en charge des préoccupations des personnes vivant avec un handicap et pour la promotion d'une société de l'information accessible fondée sur l'inclusion sociale numérique. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui vient renforcer les initiatives prises depuis 1992, date à laquelle la communauté mondiale a fait des avancées dans la promotion des droits et le bien-être des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de la société et du développement, en accroissant la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie économique, sociale, politique et culturelle. Dans cette dynamique, nous saisissons l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées pour venir à Thiès afin de matérialiser notre engagement profond en faveur de l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap par le numérique à travers une semaine de formation et la remise de matériel informatique aux écoles et institutions spécialisées des personnes handicapées et par une cérémonie de remise des attestations à l'issue de la formation sur les méthodes de recyclage des dés aux apprenants de l'Institut national d'éducation et de formation des, des jeunes aveugles. Mesdames et Messieurs, j'adresse mes vibrants félicitations et remerciements à tous les contributeurs et aux autorités présentes et aux équipes du ministère pour les énormes efforts déployés afin de relever le défi de l'inclusion numérique et sociale des personnes vivant avec un handicap, ainsi que cette belle cérémonie de lancement du projet Handicap et TIC. Cet engagement que nous matérialiserons également par la proposition d'introduction du Grand Prix, d'un Grand Prix spécial dédié aux personnes handicapées dans le cadre du Grand Prix du en vue de relever et d'encourager les talents créatifs. Nous saluons et encourageons les apprenants à qui nous souhaitons plein succès avec le numérique comme levier d'épanouissement et d'inclusion sociale. Je vous remercie de votre aimable attention. di nuyu aussi population Thiès yëpp ñu teew tey ci cérémonie bi muy cérémonie boo xam ni mën naa ni président de la République moo joxe ay orientation ci gouvernement bi pour ministère bu nekk xool lan nga mën a dugale sa loxo ci mën naa ni jàppale ak xale yi nga xam ne dañuy dund ak benn mën naa ni laa laagu président de la république nag dafa wax ni gouvernement bi ku ci nekk lam la ci dénk nga xool lan nga mën a defal suñu mbokk yooyu nga xam ne suñuy njaboot lañu te ndax dañoo bokk ci société bi dañoo bokk ci ñun suñuy doom ak suñuy njaboot rek ñoo nekk fii ba tax na loolu ñun suñu ministère dañu jàpp ni mbiru numérique tey war na bokk ci mën naa ni levier yi nga xam ne war nañ ci sukkandiku pour former ñi nga xam ne dañuy dañu dëkk ak la laago mais également ñu permettre leen seen avenir ñu mën ko assurer moo tax tey ñu jël initiative ci ñëw ci INEFJA mais également ci yeneen institut yi nga xam ni dañuy jàppale xale yi nga xam dañuy dund ak way laago ñu former leen mais également wutal leen matériel ak ay équipement fii ci INEFJA nag mën naa ni sawar nañ fi ñëw ndax bon Thiès la bokk ndax loolu chance bu mag la ci Thiès mu abrité école bi mais également INEFJA wax naa ko directeur bi man dama fi am ay mbokk man dama fi am ay xarit dama fi am ay njaboot yàlla dogal na ci sama parcours élève ci lycée Malick Sy dama amoon xarit bu ñuy wax Omar Lo tey mu ngi France ñoo bokkoon classe seconde ba terminale bis bu nekk ñoo doon ànd ñu jugee lycée Malick si ma ko yóbbu seen kër bis bu nekk. ndax dañoo sori wuñu woon kër maa ngi dëkkoon Lazare moom mu dëkk randu leen mais également su feebaroon wala mu ñëwul damay ñëw fi INEFJA di ko partager cours yi di ko dicter muy bind moo tax sax commencé woon na mu pour ma mën a bind braille donc man mën naa ne fii dama ko xam bu baax a baax mais également ma xam yéene bi nga xam ni président la république am na ko ci xale yi fi nekk ndax vraiment conseil des ministres ci la joxe ay orientation daal di wax ministre de l' éducation nationale lu mu mën a jàppale école bi na ko def et ministre de l'éducation nationale également ñëw na fi def na fay effort yu am solo ci réhabilitation bi mu ngi ci mais également ci équipement bi ñun tamit ñu ñëw ci suñu domaine muy domaine numérique ñu xam ni mën na nekk domaine boo xam ni dina nekk njeexital ci formation xale yi jàppale leen pour ñu mën a améliorer seeni capacité ñu daal di ñëw indi fi tey benn don boo xam ni c'est symbolique dina mën a jàppale administration bi ci ni muy jàppale xale yi ci mbiru njàng mi mais également ci seen ci mbiru informatique ñu ñëw tey euh, def remise bi mais également remettre ay attestation ay xale yoo xam dañ leen doon former ñi nga xam ne nekk nañ ci centre albinos yi ak ñi ne ci centre handicapé moteur yi yooyu yëpp daal jumtukaay yooyu lañ dajal woon tey mën naan indi ko fii ci INEFJA ne nag di encourage xale yi bu baax di leen wax nii euh, lii lu yàlla indi la mais suñu boroom du ni la ñuy wax du li ñuy wax du tëj bunt tëj fenêtre lii bunt la rek mais am na yeneen possibilité yu leen yàlla may ñun ñi nga xam ne jàng nañoo wala bokk nañu école ak ñoo xam ne yàlla dafa defoon ñu sëgg xam nañ li leen yàlla mooy ci beneen côté bi ba na kon da ngeen gëm seen bopp xam ni seen avenir incha allahu rabbi ngeen gëm koo wu jàng xam ne yàlla mën na leen defal sutura sànq wax nañ ma seen euh, salle bi nga xam ni mooy mu ngeen mu ngeen tuddee saalu mën naa ni télécommunication mën naa ni salle bi dañ koy war a tudd léegi salle numérique dinaa leen ko équiper dinaa leen renforcer matériel bi mais également jumtukaay yu xara yu bees yi nga xam ni moom la moom la directeur bi wax ak euh, mën naa ni encadreur bi yi mu soxla ci ay outils yu bees ñu équiper leen ko ba mu xam day nekk salle bu mucc ayib ba tax na loolu directeur maa ngi ciy dalal sa xel nga xam ni côté boobu dinañ la ci jàppalewaat soo ñu defalee requête bi nga xam ne li nga soxla. ci salle boobu pour mu moderne li nga xam ni yëpp soxla nga ko incha allahu bi ci budget 2022 bi dinañ leen ko réaliser mu mu nekk salle bu ci ayib vraiment ci dalal sa xel bu baax di la féliciter aussi monsieur le directeur ndax wax naa la ni man dama bëri ay xarit ci école bi mais également au niveau du gouvernement am naa xarit yu bëri yoo xam dañ may wax sa taxawaay ak sa ñeewantal bi nga am ci xale yi ak yéene bi nga xam ni am nga ko ci école bi yoo la ciy borom mu jàppale la ci mu gën la taxawu di remercier aussi personnel enseignant bi ak personnel d'encadrement bi ndax nag xale yi suñ fi mënee nekk nekk ci jàmm comme ni ko suñu mbokk mi waxee sànq nekk dans de bonnes conditions parce que personnel d'encadrement bi yëpp au-delà des enseignants ñëpp ku ci nekk li nga xam ne moom lañ la dégg yaa ngi koy dox. di ko doxal nu mu mucc ayib loolu tamit ñu leen ci sant leen ci gërëm di sant population Thiès yi nga xam ne ñëpp ñëw nañu donc di gërëm aussi suñu yaay yi nga xam ne ñëw nañu Adja madame le député Adja Garmi Fall donc madame le maire euh, ñëpp daal ñi nga xam ne teew nañu tey pour jëmmal bés bi mais également ñëw gunge xale yi ci cérémonie bi ñuy sant ñëpp di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. Nous sommes l'espoir de la patrie,